kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyaddabbaru aayaatihi wa liyatazakkara ulul albaab wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin alayhi wassalaam wa man bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki julli di ñuy seetaan te di ñu seetaan fii ci seen télévision Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi salawaatullahi wasalaamu alayhi di wax ne ki ànd ak yéen ci jotaayu tafsir bi mooy seen mbokk alustaz Basiru Cuun ñu ànd ci caméra bi ak suñu xarit Babacar mbokk yi mu mel ni ñu ngi ci suratul baqara waaye suratul baqara ñu ngi yemoon ci fanweerul aaya ak juróom-ñeent fi nga xamee ne borom bi subhaanahu wa taala fi lay déclaré di xam xamle ne képp koo xam ne da ko weddi weddi aayaam yi te mooy alxuraanam boo deexee bu ëllëgee biir safara ngay sax biir safara ngay biir mbokk yi lu jar a bàyyi xel la mooy nit dafa war a gëm yàlla nit dafa war a gëm alquraanul karim moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne wallazina kafaru wa kazabo bi ayatina ñi nga xam ne nii weddi nañ yàlla bañ na duñ ko gëm teg ci weddi xaale ay aayaam te mooy alquraanul karim bii ulaika ashaabu naari hum fiha xaaliduun ñooñu de ñooy waa safara te ñu de bu ëllëgee dañuy dax dañuy sax biir safara dakk duñu fa mës a génn moo tax lu jara ragal la yàlla nañu yàlla musal ci weddi yàlla nañu xiir ci gëm yàlla gëm alquraanam gëm yonenteem bi alayhi salaatu wassalaam mbokk yi bi mu noppee ci loolu nag yàlla daa dugg ci xisaab bannoo israila di leen fàttali xiiwal yi nga xam ne nii defal na ko seeni baay ak seeni maam mu nekk loo xam ne nii ci jamono jooju soxlaxoon nañ ko lool nga xam ne Firawna ci jamono yonent yàlla Musaa alayhi salaam mu ngi jàppoon banu Israil la di leen fitnaal di leen liggéeyloo te du leen fay nga xam ne moom na da leen daan liggéeyloo suba ba deux walla ba quatorze heures ci beneen waxtu wi bu ñu liggéeyee ba noppi mu ne leen wàcc leen te bu ñu wàccee du leen fay dara te liggéey bu diis la leen di teg loolu nag boobu fekkee ne yonte yàlla Moussa alayhi salaam mu nga ca yonte yàlla di ko sàmmal pour mu war ko may soxna bi nga xamee ni yonte yàlla Moussa alayhi salaam dikkaat na bi mu ñibsee ba indil euh, Firawna risaala gi wan ko ne ko yàlla moo ma yónni tax na gën a mer xolam gën a naqari mu gën a fitnaal nag ñi nga xam ne ñooy bënnu Israaïla daal di commencé nag di leen liggéeyloo toute la journée te du leen fay dara nga xam ne nii travaux forcés la ñuy def nga xam ne amut amul salaire amul journalier amul itam contrat da ngay liggéey ba jant so rek nga wax ci dem sa kër faxasu ji te duñ la jox dara xéewal boobu nga xam ne nii nag moom la leen seen borom di nettalil ne fitna jooj seen bàyyi nekkoon ci waaye itam ba nga xamee ne Firawna dàq na ñi nga xam ñu benn Israël la suñu borom musal gim leen musaloon ca géej ga labal Firawna ak ay nitam waaye it ba ñu réeree ca deseer ba yàlla yebal aw niir mu ñëw di leen keral xéewal yooyu la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di nettaleel ñi nga xam ne ñooy banu israila mu ne ni yabani israila yéen banu israila uskuru ni'mati lati anhamtu aleykum uskuru ngeen le fàttaliku leen bu leen fàtte démb ni'mati samay xéewal ëllëg yi nga xam ne ni anhamtu xéewaloon naa ko aleykum ci yéen ndax képp koo xam ne nii defal na teraanga sa baay wala mu defal teraanga sa maam rek mu ngi mel ni teraanga ji yow la ko defal kon nag mbokk yi gis ngeen ne doomu aadama bu nekk nag moom itim léeg-léeg mu nekk ci ay jafe-jafe léeg-léeg mu nekk ci ay tiis wala mu nekk ci ay takk naqar na bàyyi xel démb ndax kat mën naa am démb neexoon na mën naa am weer yi ci gannaaw neexoon na waaye it mën naa am at yi ci gannaaw yaa ngi woon ci xéewal wala yaa ngi woon ci wet gi yaram yooyu yëpp su fekkee ne da cee nekk dem ba mu yàgg nga ñàkk ko na nga muñ te xam ne kat démb suñ borom ma ne woon na la gan wala démb suñ borom mayoon na la wét gi yaram ak yu mel noonu waaye li gën a bari ñun sénégalais yi nga xam ni nii ku ci fitna dal ku ci jafe-jafe dal ku ci naqar dal rek nga fàtte démb ndeysaan commencé di caalit surtout nag ñu mel ni ki jigéen ñi ñoom ñoo ci gën a yomba caalit ak ñi nga xam ni nii ñooy euh, xale yi mu ne uskuru ni'mati lati an'amtu aleykum su ngeen ko defee de danaa leen danaa dinaa kontaan ci yéen bekk yéen lool ndax kat maa leen joxoon xéwal booba waaye it wa awfoo bi ahdi relation bi nga xam ne nii moo dox sama digganteeg yéen na ngeen ko matal kóllëre bi ma faslanteeg yéen mooy wax naa leen ne am na yonent buy ñëw mujj jamono bu ñëwee na ngeen ko gëm mooy kan sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne nii mooy mottali mboolem yonent yi benn yonent du ñëwaat gannaawam kooku bu ñëwee na ngeen ko gëm su ngeen ko defee di uufi bi ahdikum man tam de dinaa matal sama kóllëre sama sama kóllëre sama digganteeg yéen mooy lan lépp lu ma leen dig naa leen ko fay man nag li ma leen dig mooy bu ëllëgee bu ngeen ñëwee rek ma tàbbal leen ajjana kon daal sama ndaw loolu nga xam ne nii dinaa ko yónni ci mujj jamono muy sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee na ngeen ko gëm su ngeen ma defalee loolu yéen bu ngeen faatoo bu ngeen ñëwee ma tàbbal leen ajjana kon li nga ciy déggee mooy ku ko weddi bañ na doo ko gëm boo demee bu ëllëgee suñu borom tàbbal la safara waaye it wa iyaaya farhabuni man kese ngeen war a ragal man may seen borom bu ngeen di ragal ak bu ngeen di tiit na ngeen ma bàyyi xel waaye it na ngeen bàyyi xel sama diggante yéen ci kóllëre googu ndax ku ko ci bàyyiwul xelkat bu ëllëgee boo dajeeg man mbugal la wa aminu bi ma anzaltu musaddiqan li ma maakum waaye itam gëmal leen ma alquran gëmal leen nam téere bi nga xam ne ni moom laa wàccee ci yéen te mooy alquranul karim moo tax mu ne wa aminu bi ma anzaltu te mooy alquran ji ma wàcce musaddiqan lima maakum alquran ji nga xam ne bi mu ñëwee dafa confirmer tawraat dëggal ko waaye nag terewut ne tawraat moom folli nañ ko xamal na leen ne tawraat bi ngeen nekkoon de dëgg la maa yónni woon yonent yàlla Moussa alayhi salaam jox ko tawraat waaye nag Moussa diinaam ji mooy sharihaam bi folleeku na léegi nag sharihaam sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mooy dox kon nag léegi na ngeen ko gëm mbokk foofu nag lu jar a xàmme la mooy li ko commencé ci yonent yàlla aadama ba ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam jenn diina moo fi nekk ba fi ñu nekk nii jenn diina moo fi am te mooy diina lislaam sarixa yi kay ñooy wuute mooy ñuy pratiquer mooy loi yi diina ju nekk na muy doxalee ñoo wuute mu ngi mel ni Sénégal xam ngeen ni réew mi benn réew la benn population moo fi nekk mais président yi fi jaar wuute nañ te président bu nekk nag constitution bi nga xam ne nii moom nga yore woon léeg-léeg sa morom ñëw def référendum daal di dindi constitution boobu indi beneen waaye du tere nag population bi benn la réew mi mel ni réew la mais président yi wute nañ kon l'islam tam noonu la mel diina ji jenn la yonent yàlla aadama moom la yore woon yonent yàlla nuuhun moom la yore woon ismaila ishaqa yanquba yusufa mboolem yonent yi yonent yàlla moussa alayhi salaam waaye it yonent yàlla insa ñoom ñëpp jenn diina ji lañ amee woon mais seen sariya yi nag moo wuute moo tax suñ borom ne léegi kon nag na ngeen ma gëmal sama diina ji te muy diina lislaam wa aminu bi ma mu musaddiqan li ma maakum waaye téere bi nga xam ne ni dafa ñëw dëggal seen diina ji na ngeen ko gëm wala takunu awala kaafirin bihi bu leen ko njëkk a weddi te mooy bu leen njëkk nekk ahlul kitaab ndax kat man maa leen bind te su ngeen weddee rek képp ku leen topp ci weddi googu rek yéen da ngeen di am bàkkaar ci weddi gu ngeen weddi mbokk yi moo tax gis nga doomu aadama buy yoonal wala buy tëral wala bu amee lu muy créer ak lu muy sos na fexe mu nekk lu baax ndax su fekkee ne la nga créer baaxul wala nga sos fi loo xam ne baaxul bu ëllëgee képp koo xam ne nii jaar na ci yoon woowa képp koo xam ne nii def na la nga xam ne nii yow moom nga doon def di nga am ca bàkkaar ba ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ku fi aw yoon wu rafet ku ci jaar da nga am ci tiyaabo ja te du wàññi ci sa dara waaye it ku fi def safaan ku fi yoonal safaan mu ne képp ku jaar ca safaan booba bu amee bàkkaar danga am bàkkaar ba ilaa yawmi xiyaamati kon nag nit ku nekk war na fexe ba buy créer na créer lu baax na buy sos na sos lu baax buy buy buy tëral aw yoon na tëral yoon woo xam ne nii dëppoo na ak yoon lislaam wala moo loo xam ne nii lislaam gërëm na ko wala tashtaru bi ayaat yi zamanan lan yéen ahlu kitaab bu leen jëndee sama aay yi zamanan xalilan Euh, yàlla dafa wax ak banu Israil la waaye ñi kilifa ya lay waxat foofu mooy ñi nga xam ne nii ñoo yore woon tawraat ndax ni ma koy faral di waxee bu dee ci jamono jooju ku nekkul kilifa rek doo am tawraat waaye taalibi yi kenn du am kenn du am tawraat xam ngeen senegal gis ngeen ni alquran foo wiire ñi jaay la ko marché boo dem ñu jox la ba yomb lool téeméer sax boo ko amee ñu jaay la kaamil 1000 francs ñu jaay la kaamil Sénégal ñaata ñaata millions ngi kaamil ñoo nekk biir Sénégal mais ci jamono yi yooyu nag moom nga xam ne nii tawraat bi kilifa yi ñoo koy xamee léegi nag bu ñu ko xamee lépp lu ci bëgg a xam rek da ngay ñëw ci moom laaj su ko defee ñu ñu lañ cay laaj xaalis waaye it ñoom ñooy kilifa ya ngir ñi lañ cay jox ay hadiya ñooy kilifa ya ndax taalib yi mën a topp ci seen kaw mbokk yi loolu nag lu jar a bàyyi xel la ba léegi valable na fii ci Sénégal wala tastaru bi ayaati zamanan xalilan loolu yàlla daf ciy wax ak ñi nga xam ne nii ñooy jàngalekat yi di ci wax ak ñi nga xam ne ñooy conférenciers yi di ci wax ak ñi nga xam ne nii ñooy euh, mufassiroone yi mooy ñi firi alquran di ko tarjama di ko jëlee ci làngu jaaram di ko jox ci làngu wolof wala ci pulaar wala ci euh, soninke wala ci séeréer ñooñu yàlla ngi wax ak ñoom lan la wax ak ñoom mooy ne fexe leen ba alquran jii alali àdduna bu mu tax ngeen ciy wax lu ci bokkut wala ngeen ciy génne lu ci bokkut di daganal loo xam ne nii yàlla da ko araamal wala ngeen di xaraamal loo xam ne nii yàlla suñu borom subhaanahu wa taala da ko daganal kon nag loolu yëpp ngeen di ko def ngir poñetam àdduna masalan nga nekk ci genn jàkka di firi wala nga nekk ci benn conférence mu wóor ne am na ñu fa nekk ñoo xam ne nii boo firee aaya bi mu laal leen wala boo firee aaya bi mu am lu mu ci seen xol tax nga dévier ko wala nga moderniser ko ba nga xam ne léegi da ngay sóoraale li ci poos yi doomu aadama yi loolu ku koy def yaa ngi jëndee aaye alxuraan yi zamanan xalilan su fekkee ne xaddiis yonent bi la nga daal di ko moderniser ba dëppale ko ak ñi nga xam ne ñoom nga toogat aaye alxuraan yépp nga détourné ko leen lu ci nekk rek nga fexe ba mu dëppook jataay bi nga xam ne nii léegi la nga cay bañ yépp ak la ngay sóoraale mooy poñetam àdduna loolu ko koy def yaa ngi jaayee poñetam àdduna alxuraan jii nii loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal ñiy wax jaami yàlla yi di wax nit ñi li nga xam ne nii moom la yàlla wax ci alquranul karim moo tax mu ne wala tastaru bi ayaat yi zamana ci jataayu du ñu wax nit ñi li yàlla wax dañuy wax nit ñi lu yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam dañ leen di jay képp di leen nax di leen reetaanloo ba jataay bi jeex suñ fa jóge ko ñu ne oustaz toj nga fi oustaz tojoo fi kay oustaz danga nga fee da nga fay yàq kër gi dañ koo war a tabax waaye kay kenn waru koo toj yàlla ñu yàlla musal ci loolu kon nag doomu yi ustaas yi baram xam-xam yi jàngalekat yi conférencier yi gàmmukat yi nañu bàyyi xel seen diggante ak seen borom nañu bàyyi xel kóllëre bi dox seen diggante ak seen borom ci téere bi nga xam ne mooy alquranul karim nga xam ne da ngay gis conférence boo xam ne nii jigéen ñi dañ fay fees del mais dara lu neex yàlla dafa nekk mais kenn du ko ñemee wax ndax lan ragal nga ne jigéen ñi kat ñoo yore koppar yi ragal nga ne jigéen ñi kat ñoo yor xaalis bi te yow kat boo laalee jigéen ñi seen poseet yooyu ñu téye ko ndax booy waxtaan wala ngay conférence da ngay gis jigéen ñi nu ñuy ruxlee rek di ñëw ci taabal bi waaye boo leen laalee dañuy toog léegi nag yow nga ne ah xaaral ma wax leen lu leen neex rek jaye leen su ko defee li nekk ci seen poseet yi ñu indil ma ko ma dem parce que li may wax gëmuñ ko loolu du sa devoir suñ ko gëmee ak suñ ko gëmul yépp defal li nga xam ne nii moom mooy sa devoir waxal li nga xam ne nii moom la yàlla wax moom waxal li nga xam ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ndax kat su fekkee ne ñu mel ni ki classe màggat gay ca cité douane su fekkee ne wax nga ko lu ko neex mu indi li ci poset bi yëpp daal di la jox waaye su fekkee ne wax ko lu ko neex mu daal di la mere te boo moytuwut ba la rombee sax daal di la ngóomi far kon yàlla nañu yàlla musal ci lu mel noonu moo tax yàlla di wax ak borom xam-xam yi di wax ak jàngakat yi ne wala tastaru bi ayaati zamanan xalilan wa iyaaya fattaquni na ngeen ma ragal man kenn képp ndax maay seen borom subhanahu wa taala nit warta ragal nit ki ñuy ragal mooy allahu subhanahu wa taala doomu aadama dañ koy warmaal doomu aadama dañ koy jox cër waaye ki ñuy màggal waaye ki ñuy ragal mooy allahu subhanahu wa dégg nga wala talbisu alxaq bil baatili mu ne bu leen jaxase dëgg ak caaxaan bu leen jaxasee diggante dëgg ak caaxaan mooy xam nga ne lii mooy dëgg waaye nga lëre nit ñi rek ba doomu aadama yi ndeysaan xàmmeetuñ dëgg xàmmeetuñ ay caaxaan te jamono bii nga xam ne ci la ñu toll Sénégal fa la yàlla nañu yàlla musal sàmm ñu nit ñi xamatuñ fan la ñuy teg seen tànk ndax borom xam-xam yi nga xam ne nii ñooy jaxase penc mi borom xam-xam yi nga xam ne nii ñooy wax la leen neex te nekk ci média yi nekk ci rajo yi nekk ci grand place yi di wax loo xam ne nii ñun dañuy solal dañuy poser ay question foo wiiri ci mbedd mi ñu laaj la question foo taxaw di wax ñu laaj la question te question yi ñu lay laaj yépp borom xam-xam moo ko wax te lu indiwut lu may jaxase ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jàngul yàlla ñu yàlla musal te jubal ñu bi jaay saydi wujud alayhi salaatu wasalaam ñu ne wala talbisu alxaq bil baatili wa taktumuna alxaq ngeen di nëbbu dëgg bu leen ko def ndax kat nëbbu dëgg baaxut wa antum ta'lamun xam ngeen li yàlla wax xam ngeen alquran li mu wax xam ngeen li sunna wax waaye ngeen nëbbu ko feeñal la leen neex ngeen nëbbu ko feeñal loo xam ne ni bu ngeen ko waxee mu indi ampleur loolu le suñu borom subhanahu wa taala na daganu ci ab jullit mu koy def rawati nag jànkat rawati nag conférencier rawati nag borom xam-xam nekk loo xam ne nii lu doy la suñu borom ne wa antum taalamun xam dëgg ba pare suul ko bàyyi ko fi loolu daal lu jër a bàyyi xel la mbokk yi kon daal ñun ñëpp nañu dellu ci yàlla xam ne mooy wërsëgale nañu ñun ñëpp nañu dellu ci alquran te gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu mbokk yi mu mel ni suñu caméraman bii di Babacar mu ngi ñuy xamal ne suñu waxtu jeex na xanaa ñu teg suñu baaram foofu rek ba beneen yoon incha allahu taala ki ngeen àndoon ci tafsir bi mooy seen mbokk oustaz Basiru Cuun jaalana allahu min alazina yattabina xol fi yattabina ahsana wasalaamu aleykum